ngir xeex ñàkk kaaraange bi ci kaw tali bi ak fexe ba wàññi l'accident yu bëri ba yéen sax dafay lor bakkanu doomu aadama assemblée nationale daal di wote code de la route jëmale ci permis a point waaye code boobule du ñëpp ñoo ci gis seen bopp Djibril Thiaw di ab chauffeuru taxi dafa jàpp ne code boobu du luy jàppale dawalkatu woto yi. permis à point bi annoncé parce que ñun dañu yor njaboot war a liggéey xam nga tax annoncé mooy maanaam loolu ne ñun transport bi dañ ko yàq transport li mënoon a mel sax melatu dafa tas daal sécurité bi mooy mooy nit ñi ñu dawal teg ko ci code rek buñ dawalee ci code rek sécurité day am pas permis de point buñ dawalee ko ci code loolu moom garaaw Khadim Mbaye doon chauffeur Ndiaga si benn défaut ci ko doxalee nu mu waree ah ah yëpp man dana yokk lu bari ndax ñaar accident yi nga dégg yëpp ñu di coow chauffeur yi ñu jóge ñaar bu jóge daan jóge laggi wala ñu gaañu wala ñu jële ca ak kii boo xam sax dootuñu dawal teg ko ci njub ak jubal rek lañ jublu moom moom moom xëy na loolu kenn du ko bañ waaw waaye li problème mooy ñun moom daa mel nañ moom dañoo amul weer waaye daan saa su ne daal dañuy dig ay duma waaye ak ngëneel moom ñu ngi mo Macky Sall ne indi ko safari assemblée nationale ci lu yàggul dara code la route buy instituer permis a point lu muy visé moo di ne ñu gën a yeesal lii di circulation bi ci kaw tali bi bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllum dem ak dikk bi di Mansour Faye waaye chauffeur yi di dénk ne procédure boobule du lu leen di arrangé